ah mbokki daara ji kaasiful albaas bi moo taxaw démb bàyyi tegoon ci li ñu wax tasyil bi maanaa ab mbiccal mbiccal mooy nga wax wax am loo ca ñambaas mën nañ ko tudde kon ab ñambaas xam nga sér bu mën ngaa def sér ah def ca ñàmbaas pour gën a yaatal sér ba wala yére kon nag lañ doon wax dañ ci jokkaat wax mi ngi ci paas cent soixante-sept téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima baada hamdi gannaaw bañ ko sante bima cant koo xam ne yeliiqu dafa yelloo dafa jaadoo dafa tolloot bi jalaalihi màggaayam wa salaati ak julli xala safoti rijaal yi ci nga xam ne mooy këy nga xam ne mooy sellitu góoram ya góor yi yëpp góor ga ci gën a sell ci la julli waala saayri sahabati ak mboolem andoy wa ali ak alom njabootam fahaasa li tasyilun ñambaas la alxaqtuhoo boole naa ko bi taalifi naa suñ taalif muy kaasiful albaas ci laa ko ñambaas wayustamalu wayustamilu kon dana làmboo xaalaa fusoolin ci ay fasal mooy teqali bunt wali nafaasati ndax fooraayu li nga xamante ni mooy ñambaas bi walla mbicc bi ndax fooraay bi ci nekk tax na laa yustax ni kenn du doy loo xam ne coom Euh, man euh, man koo xamante ni yar xabru na xamam fi uloomi tariqat yi ci xam-xamu tariqa bi ku ca am xememteef man la ko bañ a jot maanaam doo ca doylu mm-hmm. il faut nga soxla tasil bii mm-hmm. wala xalaa dong nag asalulaay ñaan an yàqbala mu nangoo li ñeen ñeel ñu wa alina euh, ci ñun mm-hmm. yàlla nangul ñu defal ñu xéwal في البدء اجتام لبي والقتاب اقتام اقتام اقتام فهم يالا المبدئ موي كي دور المعيد موي كي دلو القفور موي جيغل كت الودود موي سوبي كت با سول عرس موي برم عرس المجي كتا دي فعال موي كاريخ ما يرلم بغرق نا ام فاقل ما نغوخ من إبراهيم بلا تيال نكنا التوفيق ساس نغبغ وخ يالا يومبال نغي دف وهو موم alxaadi mooy gindi bi ma nii ci xewlam ilaa soo ay tarix jëm ci jub jubu yoon wa ah, lan laa fan laa doore naqala toxal nañ ñuqi la toxal nañ fil jëy si luñ ca toxal kàllaama cheikh seydil maxtaar kunti waxee cheikh maxtaar cheikh seydil maxtaar kunti benn téere boo xam ko tuddee fi jannatul muridi àjjanaay taalibe wax ju ma ci jëlee laal na in wala soo wal ajab kiimaan kulal ajab boo xam ne kiimaan bi nga xam ne mooy kiimaanu kiimaan yi lan la bàyyi mooy lan min inkaaril xuraa yi ak jànkat yi min ahli hasri waa jamono ñoom ñi jàng ñuy widd ci jamono bi li karaamaatil awliyaa ci karaamay wali yi loolu de kiimaan bi gën a doy kiimaan mooy boobu nga jàng ba ne xar ah te fuñ sa tuddee wali yu nga ne déet sax nga da waa idaa ak woote dañu xoote inqitaa tarbiyati ne këpp dagg na tarbiya ak ñu ne ay eh tarbiya amatul waay ñoom ñoo xam ne ñoo jàngal yow commencé jàng bokk tarbiya ñu ne tarbiya coupé na amatul kan la min sanati miif wa samaani mi atin bi maanaa ñu ne ba gàddaay gi amee juróom-ñetti ah, da juróom-ñetti téeméeri at ak lu tegal ca la euh, tarbiya jeexee ah moo tamit dina ñu nga sukkandikoo bi sa amim seen wax alama ci loo xam ne xaqaan nit ko an sarooqi bàyyi ko ci sarooqi rahima yal na yërëm ko allah yàlla taala moom sarooqi moo waxoon min qawlihi inqataat inqataat dagg na ak tarbiyatu moo tax ñoom bu ñuy bëgg a kontor dañuy seet wax joo xam ne dëppoo ak li ñu bëgg fekk sarooqi dafa am wax nañ ko ci gannaaw dafa gis ay tappalekat yu dugg ci biir tarbiya yi mu bëgg a dàq ñooñu tax mu ne ah tarbiyat coupé na ah fekk na booba jublu ci tarbiya coupé na bi maanaa pour bëgg a dàq ñi xam nañ ci dugg si wala sufaata amul benn lënt loom ñe leen fi salika ah li annahu na xam ne moom innama xàkkaa ñett lool inqitaaha dagam dagam minal maxribi loolu la waxoon moom soroki mu ne ah ci maxrib daal fi mu ne nii تربيه في اومم امر بالله جاي بو خامتي ني نيك في سمان جامونو مخصوص سن بو خامني دنجو جيغالي بي قطرن تي بن غوخ مخصوص من غا خني سن غوخ بي ني نيك اماتوت تيكول نك ني اماتوت سي كو سوف لول من نا واخ غناو تي مغرب لا واخ اسنا لا قايلو امول كوخ bi wujoodul murabbi am ak ku yaree fi kulli qatrin ci bépp bépp gox ku nekk àdduna wërngal këpp kuy tar bi amatu fi loolu gisuñ ko ko wax wala bi lu soomi yi du takk takkalee bi qatrin gox waaye din fi kulli sawana wala boog tarbiya daal ci mooy orient rek lay amee wala Maroc rek lay amee waaye du amati fenn foofu loolu kenn du ko wax bal allasi li nga xam ne añ ma daje na ale ci moom muhaqiqoo salaf ñi nga xam ñoo dëggoon ci salaf sànq maanaam ñi jiitoon tey mag ñu baax dañoo dëggoo te dëggoon wal xalaf ak ñeneen wuut ñoom ñëpp daje nañ wujjoot a qaaimin am ak koo xam ne mooy taxaw bi ah ba i tarbit li nga xam ne mooy chargement wu tarbiya ñoom ñëpp ne nañ nga gis nga jàkkaar gis waaye am na heure boo xam ne waxtu nekk am na ko xam ne mooy yore lenge yi mm-hmm. ñoom ñi xam ne am nañ xaqiqa mm-hmm. daje nañ ci wax jooju daal yaa xam fii Sénégal la yaa xam Mauritanie la yaa xam yaa xam daal ñàkkul ko xam ne moo ko yore te lenge yi mm-hmm. ujoda xaam bi abayi tarbiyati min xayri taayinin ci dul ngay ràññee nag li adadi ci lim maxsoosin bi maana ñoom diiw diiw diiw diiw diw dong ñoo man fi ñoo fi man tarbiya mm-hmm. lool duñ ko wax aw qutr wala ah legui day ah, salum wala bawol wala nangam rek mo fa la nek mm-hmm. lool day nit yalla yu wax duñ ko wax mm-hmm. fan xitaawa coupé tarbiya minal maghrib ci maghrib nat ci ci le. wa faqdul mi ak ñàkk ku taxaw fii fii ci moom bi abaayi ci sartement wu tarbiya su dee amul ci soow jant ma nag tey Maroc ak ku taxaw di ko jëfee laa yaqdahu du wàññi fii maal olama ci jubak alamaa yi borom xam-xam fi wujóot yi am na fi jumale si ñëpp mm-hmm. loolu nag buñ ñu demee ba léegi ñu ne misra ngi nii de kenn gisatu ko Ah, kera ina nga mam ah, sirengi ni mai may mhm. ak yoy yep ken gisu fi lol nak du du yàq dara ci li borom xam-xam ni dañu ne ah amna kum am de ci mbolom mhm. ah li seeti xiyaam yi ndax wiré taxaway ku yar mhm. fi tëkkaraar fu ñax wax masalan ci masal bi mana bu fekkee ko ci gox yep mana fi wax مثلا من فوتا ام نفا مثلا او في مصر ولا نرا او في نواي مصر دي ام نفا او الهرمين نرا ام بين سي كوسو واي خامنا ني گنا هرمين ما كاميرنا او سام ولا نرا ام في نواي سام ام نفا او العراق ولا العراق ولا ام في نواي العراق ام نفا منفردا مو خام موم دون كويتو او متعددا ولا ني ليبو bi ma de ci ay place yoo xam ne araad na mën a allahu yàlla taala inqitaa lii ah, ah, dogu waa waa ah, gox ba xaalaa yëdde yi ci loxo yi kooka nga xamante ni moo fa nekk ca gox ba man na nekk kon bu nekk ci gox bi am na gox bu mu nekk jël ñi nga xam ne ñoo dogu ci tarbiya mu yóbbu leen mm-hmm. bi ishaar yi benn moo koy feeñal xam naa li ñuy uddee di yor na ko léegi wakkas fil ijaab walla ñu ñori li nga xam ne moo doon kiiraay la doona xusoos yi yët yi ci lu dul ñuy jagle nag li alibal dët yi ci waa dëkkam ba daanaa moom moom mooma nag su fekkee ne dem na ba nga xam ne moom lañ def mooy moo yore lenge yi du waa dëkkam dong ñoo ko moom tey ma nak Cheikh Tidiane tay gis nga ko bi mu defee Cheikh Abdou Qadir tidiane ci Bagdad ba tay nam dayo bat rew mu nek ko da nga fekk ko Tidiane nonu bo fe nak mom itam tayo yoo ci dëkk du ñu wax ne mom ñoko ñoo ko ñoo ko jagoo ah, aw bi Maodo hen wala place qada bo xam dogal ala yàlla taala birmani maa ni ñu xagn ko biir ni kon ñu xagn ko dëkk Ah, ñu ne place bi nga xam ne yàlla dogal na ne ñoom daal am amuñ ko woo mm-hmm. wataddim ak dàq leen adres ci adres ci PM mm-hmm. bi adami nafihim ñàkkaa jëriñoo ko ñàkkaa jëriñoo mm-hmm. xaalaa yëddi ci ñaar loxoom loolu nag bu nekkee place sàngam place waa place ba nag faalewuñ ko ba yàlla xañ leen ñoom waa place ba mën ñoo jëriñ ci foofa taxul nag ñu ne ñeneen i jàmbur duñ dikk bokk ci ah, ah kon nag lool du tax li sat lil hijaabi ndax yoor gañ yoor kiiraay albasiriyati ndax hijaab albasiri kiiraayu kiiraay doomu aadama mën naa tax nga jigéen nit ki mu yore li nga bëgg li nga ne ah, xamul dara bàyyi bu toogee naan na dim tuxalaat te fii man Ibrahima Niass réccu naa sama wolof yi hay si añ ni araaxum ah, dégg nga yaa ni foo naa ni tibaaye gis naa wolof daal dañoo jom loo toppe wax na dëgg wolof yi ñoo ñi mujj ñëw jamono bii la gën a bari rek gannaaw bu fi bàyyi ko waaye jamono bàyyi ah, nekk ndax nekk ci digg Kaolack nekk ci digg Saalum te mosoo xam koy fa faalewu Ibrahima Niass mosoo dem ah loolu nag yow ma nga xam ne yow lañ xiir ba mënoo caa jëriñ taxul nag ñu ne jëleen jàmbur duñ ci jëriñ ah mi ngi nii ba Sénégal ba waa Nigéria nangu ndax te mën nañ ci dara ah kon nag ah, doona kusoo si yëti yi duut nag ñoo ko jagale fa yàqoolu moasiro moasiro ña jamonaanteeg moom ñu naan maa saa nekkul kii ilaa basar lu mooy nit mis lu kum comme yi rek eh, kii ne la comme yi rek <laughs> xanaa yéen <laughs> xanaa yéen ñi yéen ñi dëkku nag moom yéen ñëw di ko seet waaye ñun ñu dëkk moom ñun kii dañ koo faale ah <laughs> ñàkk la faale ñun faale nañ ñu ngi bàyyi ko ba ba kii Banjul mhm. ne ñu nga bàyyi ko Murtani mhm. Sénégal ngeen a faalewul ah ñun de faale nañ ko mhm. yéen Kaolack faalewul ñu naan ñu ko faale nañ ko waaye bu la mahasa ila basar misukum yàkkulu dafay lekk mi ma tàkkulu li ngeen lekk minu coom yéen a bokkoo lay añ de reer di ndékki ngeen di añ ak reer ak ndékki ah. woo yasrabu day naan mi maa ci laa xam te sarba nga koy naan day mar nañuy maree da naan nañuy naanee nii rek <laughs> ah ñun day yéen a yéen yéen la def loo waaye ñu jaaxaluñu ñoo dë ñoo dëkk moom seetal <laughs> ay lim yàq <laughs> man saa jàngale ci kër Baye ah man comme man Baye moom bokk moom seen ñu dundoon ak moom gannaaw bu mu demee 83 laa doog a dikk. ah ba ma dikkee yi dégg nga maam ah, yàlla def na man ma jël sama yitte yëpp wiire ko ci benn waaye boo xam ne daan bokk moom añ ak yu ma xamoon yëpp waaye oustaz gi bu ñu sonal waaye ñun nga xam ne ñoo nekkoon ak bàyyi ñoo da lekk ci ceeb bi man ah <laughs> yéen ceeb ngeen bëggoon man bàyyi laa bëgg waaw <laughs> kulun walay laaw <laughs> ah lii dafa am ba tey ba tey tey la gën a am nag am na ñoo xam ne duñ jàngu ci jàngu bii ndax dañuy wax ne ñun ñun ñoo doon ñun ñoo doon laa si amal xuraawu rawat na jànkat yi almuntasiboona ñi nga xam ne ñoo askano mm-hmm. ah, li fadlati rasmil uloomi mm-hmm. ndax ndisitu mandargay xam-xam mm-hmm. allasina ñi nga xamante ni xiila fi muslim boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom lañu doon gaarwaale ci bi woykat bi moo doon woy ci mel naka ñoom qaaloo fulaanun aalimun faadilun fa akrimahu mislu ma yartada fa qultu lama lam yakun saa tuqan tuaaridul maanihe wal muqtada xaaloo wax nañ ñoom ñu baax ñi fulaanun diw sàngam day aalimun boroom xam-xam la faadilun ku baax la fa akrimoo na ngeen ko teral mis la maa kem naa xamante ni yett daa ci lay gërëmee teral ko teraa nga joo xamante ne am ci kontaan xultu ma ne lamaa lam yëkkun ba nekkul saatuqaa borom ragal yàlla bi maanaa yow nit ki waxut borom xam-xam ba yow ma xam ne bañ la waxee li fekk dooloo ko ragal yàlla toxaari dafay kontoor almaanihoo ku tere ku kaba ka bañ ka bañ nya toppee ka ka bañ ka wal muqtada ak ya xam ne dafay sakuna na nangam man kay bëggee nangam kon nag fa inkaaru misliha misliha ulai weddi ñu mel nak gaay yi ah, li misli ah, la mislu wujoodi muri na lu mel naka am ak yarkat yi seen kontor gi nga xam dañu kontor ne ku yar amatul woo ko même ak seen atte bi in xitaay tarbiyat yi ne tarbiya euh, coupé na mm-hmm. ah ñoom ñoo ñu nga xam ne ñoo wax loolu dogg ci ne tarbiya amatul mujaasafatun bi maanaa loolu daal yër yër la le bi maanaa manqué la mm-hmm. loolu soo ko waxee dangaa manqué respect mm-hmm. ki tëral sariha ki tëral sariha daf koo tëral ba àddina tukki nga toog na moom ma ko tëraloon tëraloon bi yàqu na tey dara doxatu yow da ngaa manqué respect kii jafaaw boo ko déggee mu jaafatul mu jaa sofatul bi maanaam manqué respect alasaane bi maanaam ndaxte wamaaka arsanaka ila kaafatan linaas yonentam bi xàggagut nga nag yonent bi yàq yonent yàqu na amul lu ma a jëriñ ci nit ñi waaw <laughs> waaye yow yaa manqué respect borom sariya wa musaadamatun teyit dafa songoxat li sëriñ na si ci yax yu wér maanaam wax yu wér yi nga xam ne moo di ko wax ne daggul léegi nag yow yaay fàddanteeg yaa wax yooyu pour daan leen fa in yàkkoonoo buñ nekkee ñoom weddikat yi mun ki leen di weddee li aslul wilaayati ci saan wilaaya ñu ne aw wilaaya aslan amul wowu jurul ak amul ak ak yi rassan direct bi maanaam wali ci moom direct amul tey bu dee lii la ñuy di cosaanu wilaaya ak wilaaya amatul te kat ni ñu fi ni jàpp nañ ne koo xam ne du ca wali njëkk ya ak ko wali yu njëkk yi jur rek du wali ñu wali njëkk yi ñooy wali yu ñeen jur ay ñooy wali seen sët ñooy wali wilaaya du waalaati de wilaaya ah mi ngi nii ndax nguur gu saayir gii sa bay bu jangon ba am diplôme ñu kaw ñu def ko ministère wala ñu def ko de nga ah de nga mam ah, gouverneur wala préfet wala sous préfet nga ñëwé tuddi sa barké bay bay na kéré jangoo ba amul ben diplôme sa bay jógee ko fu nga dikki de nga am jël paltom yi sol ndax da nga fa tok do fa tok de wallahi ngor ak birki sax mo gëna a piriti googu ah kon nak ni day ñi nga xam ne dañ ne kon waliyu amatul fii ne falaa kàllaama ma awum kon nag man ñooy ku wax waxin woowu amatuma lu may xayoo falaa kàllaama awum lu tax li kufrim ndax kiifir loolu kiifir la ah li taxi fi dégg nga li taxi bi ah lu tax ñu ne yéefir lañ lu tax li taxi bi ndax weddi gi ñu weddi maa loo xam ne yu nii fu ëpp na xaalaa mi atay aayatin lu ëpp ñaari téeméeri aaya min kitaabilaay ci téere yàlla bi xasana na lu ëpp ñaari téeméeri aaya wax ci dara ah maa bay na sëri yin am na aaya boo xam ne bu dikkee dafa wax lu leer bañ xam ne ah aaya bi ni ci layax wax ci ak loo xam ne mooy sàkku ah nga sàkkoo lii de moo lay xamal ne boo ko sàkkoo nga xam ne daal waa sara ak lu gën a bëri min salaasi mi ati hadis lu ëpp bëri ci hadis ah lu ëpp ñetti téeméeri hadis ah yoo xam ne moom day tegtalee wilaaya dikk yow na nga weddi ñaar téeméeri aaya ci alquran ñetti téeméeri hadis ci yuy doon taxal wilaaya nga dikk weddi ko loolu kon moo tax ñu ne kon xéeféer nga wa in kaana bu nekkee inkaaroom seen weddi laa ñeel wilaaya min jeeti daawaal inqitaay ci côté oote goo xam ne nga ne dagg na min kuli wujoo yi ana façon yëpp dara dara amatu fa ku oote loolu nag coupé na complètement xamoon na waaye amatul ah temps bi benn dara dara amul ku wax loolu fa yoon wax jooju daawaa ba tey ay campagne la ay dem ba tey yu ko si waxaa yoo xam daf koy fen loo ndaxte kon loolu wax na wax xamante ni woote boo xam ne daf koy day ana yu ko si baa day weddi waliyu ànd ah, na ko ndax laa yeex la du wét du wét ima benn yaddoxoo ma ngay oote inqitaan diini ku ne wilaaya amatul ah, complètement mm-hmm. benn waxi na wa daal dana nekk nii inqitaaw diini min asli mën a diina diina ci boppam jeex na benn waxin woowu aw laa yadoo wala wootewul loolu waxinam daal benn mooy diina jeex na wala waxewu mën a diina jeex na fay na daa bu ootee inqitaaw dagu dagoom ah kulifoo dañ la teg bilu jësi lay waaw boo ne waaw léegi moo ne nag wilaaya dagg na léegi lan nga ban ban ban preuve nga ñuy indil wala hujjata amul benn pa benn lay looñal ko min kitaabin moo xam alquran mënu caa sukkandikoo wala min sunnatin mënu caa sukkandikoo wax la na li tax ma ne wilaaya jeex na alquran moo nii wala sunna moo ne nii ijmaa yi bu ko jëlee ci ijmaa bi maanaa boroom xam-xam yi mooy majorité borom xam-xam yi doo ci jëlee wax ñu mel ne ko noonu bal fa ñuy sukkandikoo bi yaxju maanaam bal yaxjubuhum daf leen di yiir woyu ko si buhum daf leen di widdi ñoom daf leen di yiir maanaam daf leen layal bu la neexee daf leen di fenloo xayruma addis loo xam ne bokk na benn addis ana addis yi leen fenloo du doon benn addis ñu ne ko bàyyi addis yi leen fenloo gaa yi mooy ban ak ban mu ne fa mi naa bokk na ci xawloo sala salaam ummati sama xeet wi kal xëy si dafa mel na taw nawet laa yudra xamee sul awaluha njël benn taw nawet bi nga xam ne ci lañu ji mu sax xayru moo gën am aaxiruha wala taw yi mu ji nga xam ne mooy tax mbay mi ñor sama xeet noonu la mel comme taw nawet lañ ñaari xet taw bu ñëkk bi xamuñ moo gën wala bële ndax bu ñëkk bu saxalu doon kon bi ñoral lu mu jëriñ waaye na bi saxal bu saxalu mu itam bi ñoral amul ba tey kon nag lam saxaloon yàqu moo tax nag xeetu kon dégg nañ ne xeet wu waa bu mujj yëpp baax amul bu ca bon ah lol hadis boobu kon fen loo nag ku bëgg a wax loolu wa minha bokk na ci li ko fen loo hadisul xam nga kuy wax di indi ay preuve te yow miy weddi indiwoo benn preuve laa tasaaloo du jog taifatun ab groupe min ummati ci sama xeet wi de taxaw xalal xàq ci dëkk du nañ mukk am groupe boo xam ne ci sama xeet wi ñu ngi taxaw ci dëgg zahiri naa ñu ciy dimbalant nag laa yedruhum du lor leen man xaalafoom ku ut ak ñoom lu yàgg-yàgg boobu lu àdduna yàgg-yàgg fekk àdduna jeex xam na groupe boo xam ne ñu ngi taxaw ci dëgg da ca dimbalante ah ku uute ñoom it mënoo leen yàqal dara laa yadru man xalafum wa qatalahum wala mu beet leen maanaam ñàkk leen faale ku leen ku leen wuute ñoom fàtte leen yàqaloo leen dara nii lañ fee nekkee nii lañ fee nekkee attaaya te ba ñëw am laay mbirum yàlla mooy lan mbiram yàlla ñëw waxum ci ñoom xaalaa saalika ña nga ca seen dëkk ko rek kenn mënu cee lépp muusi waaw léegi nag yow nag nga nekk jamono bii ah nga tarbi yow ba pare nga jàpp sax ne daal tappal rek moo mën a réglé moom lañu ñu mën a amee taalibe waaye dëgg daal déedéet moo tax diine wit na la tariqa wit na la faydu wit na la borom borom faydoo ngi nii bul gis mukk Reug-Reug ji yàqu ak yàqu nga ne mën na faydu bi faydu bi yàqu na faydu bi yàqu na xam nga am na ñoo xamante ni bañ demee ñu ne faydu bi ci départ baax na waaye faydu bi dafa am lu ci dugg seytaane ci dugg moo tax ñu anga déedu dëgg ñu ko kontor ñoo xoon loolu kon nag lii addisu yonent bi moo ñu xamal ne kon nag dëgg-dëgg am na kuréel yow kay yaa war a taxaw nga ne waaw bi ma gisee lii te mbaax mbaax gaang ci mbaaxam nga ba tey waaw fan laa koy jële nga dem gëstu ko te bañ ko utal place nag boo ne man de këri diine yu mag yi rek fa laa ko seet ah mboot ba demee gën ko gën ko gën <laughs> doo ko gisati booy seeti mbaax seetul ku baax rek ak foo ko mën a gisee ji ndaxte yàlla moo anal fat la bi yet la yutti ma ne moo ko yore mm-hmm. ku ma neex ma jox ko waaw ñi nga xam ne mooy yahud yaa ngi nasaraan ba mu leen ko joxee mm-hmm. ñu yàq ko du def leen fa nuyu ko ñukk waaw léegi nag bu di koy jox ko arab yi arab bu ne ko joxee buñ ko ñukk buñ ko yàq du ko du ko ko feneen waaw kon nag buñ dikkee ba ci Sénégal boroom xam-xam yi Sénégal yi moom yàlla rus na leen moom du ko dangoot ci ñoom loolu la ñu loolu la ñu jàpp <laughs> demeewul noonu de yàlla ma xoon laa mubaddila li kalimaat laa ni wax laa tabdila li amul benn tabdil mm-hmm. sama tëral bi daal taayu ma ko fi indee mm-hmm. nga de ci jaar wala sa baay de ci jaar na ma ko bëggee mm-hmm. mu pare nga won ko gannaaw faqalafa min ba'dihim xalfun li alquran ci waa Israël ñoom de dañoo wuute seen maam ya min ba'dihim xalfun xalfu ak xalifu bokk ñu ne ko xalfu mooy kan mu ne adaaw salaat wa tabaw saawaat ñoom sànq nañ julli topp leen neex tey du nit ñi moom lañ nekkee faale wuñ julli topp bànneexi tariqa yi moom lañ fi nekkee ah fasa fa yàl xaw na mooy si tegee de xayan buñ foog ne ñoo gën ñun xeetu Sénégal ñoo gën xeetu Israël de mokk kon nag addition yonent bi xamal nañu ne ah gars yi kuréel ba demal nga uti kuréel ba Euh, bi dama dañ ma am ñaari ñu ma oo ci guddi tay bañ a seen gama tarbiya xamul sax ne man maa def kaset yi xamu ko <laughs> dégg nga ci Baye Sam la ko jotee yónni message bi Baye Sam Baye Sam yónni ma message bi waa ji dama wax wax joo xamante ni dama tagg tagg yoo xam ne man sax xama ne waa moom <laughs> danaa dajale dëkk bii danaa wax nii naa wax laa danaa wax laa lu ko jar ma toog beneen message dikkaat boo xam ne tey ba ngi téyeen <laughs> waaw fi nga xam ne mooy sees yi nga xam ne fa la bàyyi ah, ay sañ ca fa nekkoon ak gaayam yi ma nekkoon nga xam ne kon nag mbir yàlla mu ngi nii doomi sàmm joo xamante ni bàyyam sàmm la woon boo ko doon sax ci taalibe bàyyi ah léegi tey bu dikkee nag ñoom ñu toppoon doomi sàmm boo xamante ni que de indi loo xamante ni moom mooy loolu moo tax kon nag bu ñu yaakaar ne tey mbir mi kon nag doomi wali yi ñoo ci ëpp doole doomi sàmm yi ah wala doomi yi nga xamante ni mooy doomi ñeneen dema de boo toppee bàyyi rek bi xadriment tuyi boo ti tanaalu am daadu ko loolu nag dañ koy wax rek pour wan leen ne la yonti bokkoon dëgg la la bàyyi ñes indi dëgg la kon nag wa ini daa bu oo wa ini daaw buñ ootee in qitaa masabi tasawuf tasawuf ne dagg na ngiram tasawuf doona këyit yii lu moom min uloomi rusul mi xam-xam yi xam-xam yépp nawoo ngay daw balaa xam mi ngi dox xam-xamu science mi ngi dox philosophe mi ngi dox xam-xamu technique mi ngi dox xam-xamu fiqi yaag yépp ñu ne mi ngi dox waaye ñu ne xam-xamu tasawuf coupé na <laughs> ah! seetal ci kat moo xew fi nii ñi nga xam ne ñoom ñoo taxaw contre sofiyanke yi ñoom dañ jaral na lu nekk nag financement sax dañ ci teg financement nga taxaw ne boobu xam-xam moom na xam-xam yépp a ngi dox nag fa sawaayidul kitaab bi ay témoignage si téere bi wa sunnati ak seere sunna saadihatun dafay toj dafay tas xalim coom bi tasri bi ah, di leen yedd wa tan tafniidi ak fenloo leen wa taksi bi ah alquran seede alquran ak hadis mooy dikk dal seen kaw saadihatun mooy dal seen xotti alim de leen yedd de leen fen di leen fenloo fanada mooy diw ak taksib mooy kàccloo di leen fenloo bu la neexee is ndax xaasilun loo xam la xelmul xaqiqati xam-xamu xaq baat nu xelmul xaq yi mooy biiru xam-xamu xaq yi wa rasool salaa sallam yaqoolu nee na inna li kulli xaqin xaqiqatan inna li kulli xaqin ñel ne bépp xaqu xaqiqatan xaqiqa ndaxte xàqu ci ëwalu xam na xaqiqa lu ñu tuddee xàqu rek xam na xaqiqa xàqu ci aaxiru xam na xaqiqa xàqu ci zaayiru xam na xaqiqa xàqu ci baatinu xam na xaqiqa te yàlla nag moo ne may awalu may aaxiru may zaayiru baatinu te fu mu dikk ci foofu rek xàqu la kon nag xàq boo fa ji nag xaqiqa ba muy taxawee bokk nag bëre moo tax nag loolu mooy aadaabu tuluuki ndaxte yow mii lañ bëgg a jëriñ ci xàq bi moo tax ñu indil la ay jaar-jaar yoo xam ne boo ci mën a jaaree del saat ci xàq bi waaye doo fa nag ñoom xaq xaqaayiq yooyu nag doo leen fa bàyyi de mm-hmm. ah, doo ca tagit de mm-hmm. doo leen jaamu doo leen topp yaa ngi ay topp nag dopp ay tànk ay tànk ba dikk ci ki nga ne mooy xàq bi nag lool mm-hmm. ah, loolu nag loolu la kon nag kon nag yonent bi moo wax loolu kon nag xam-xam boo gis rek am na lu nekk ci biir waqat masala misaal na saarixul xadis yi ñu doon sara bi saari ko loolu bil xisri ñu ne kon nag boo déggee ñu ne saayir ak baatin ak baatin baatin ñu ko firi dañ ne mm-hmm. loo gis am na bil xisri am na xollit Mm-hmm. wëllu bi ak kemb mm-hmm. xollit gerte mm-hmm. ak kemb ba ci biir xanaa ñun xamuñ soxla ci xolliti gerte yi rek ak ngooñ yi <laughs> xanaa kemb kemb ba nag mooy xàkka ba <laughs> yow nag moo tax ba bàyyi ma foor bàyyi ma mu ne falaa ko xisir diini xasa mu yi bi naa nga la yàlla xollitu diina bu mu nekk suñ ciru mbëggeel ci yow bali nubbu nubbi nubbi bi nga xam ne kemb nga xam ne nga xam ne man naa mayet kemb may ñu kemb ga te yaakaar naa baykat yëpp ñuy bay dañ dongoo tax ak ak ah, xottu ga tax ah, xottu gerte gi la tax ñuy bay mooy kemb nag kon nag loolu lañ tuddee nag saahir bi ak baatin bi xam-xam bi teg biir ñu ko tuddee bil xisri wa nubbi ah kon aywa eh, fa shariatu sharia biti bii tisrul mooy xollit bi nga xam ne xollit it doo ko amul doo mën a am kemb de ndax kenn ku ne dafa am looy liggéey loo xam ne soo ko defu rek ka ca kanam du mën a sotti gis nga ba nga jiyee kemb mii daf laa sànnil kemb fële andi nag ñaa xam ne mooy tax nga mën a am kemb mooy lan mu génne nag ngooñ ndax ngooñ bu amut xott du amaat kon nag mu njëkkee moom moo tax sariya moom itam moom ngay njëkkee ndaxte boo amul sariya doo mën a am li nga xamante ni mooy euh, xott bi nga xam ne moo lay indil kem léegi mu indi la ngooñ nga bàyyi ngooñ ma taxaw ba màgg ah reen reen reen nag daal di samp ci suuf génne la nag la mooy njëkk a génne mooy xott bi su la génne la xott ba xott mat kem nekk ci bi da màgg ba mat ndax kemb boo ko su xottiloon xottiloon boobu dafay dafay weex tàll ci biir soo ko jiyee sax waaye soo bàyyee ba nga xamante ni soo ko soo ko tojee mu xonq soo jiyee rek mu sax léegi nag kon sariya noonu la moo tax xaqiqa duñ ko xaqiqa mën la ko jot tey xaqiqa dafa am jaar waay yooyu jaar pour jot